mën a wax ci moom yëpp dafa bëri parce que mara démb la du tey jullite na yaram la am na yar am na teggin yar na bëtam yar na kàddoom macha allah dañuy wax ne jullit ak moroomu jullitam dañ naan al mumini lil mumini na kal bunyaan yashuddu ba'dahu ba'dan jullit ak mbokkum jullitam dañuy mel ne ay biir yashuddu mooy dëgëral ba'dahu yenn ba'dan ya ca des maanaam lu ko sut lu mu ngi ci moom boo ñëwee këram di nga añ di nga reer di nga ndékki mu dalal la coono boo mënti am soxla boo mënti am soo ñëwee toog noo seulement dina la dalal mais dina la dalal ba nga xamee ne soo demee boo tëddee di nga nelaw kooku kenn mënu ko fay dañu ne dañu ne nit ku baax dañ ne jiw bi saxu bi nit nit rek la mën a doon mais moom lépp loo ko waxal rek am nga loo bàyyi dañ koy ñaanal kañ yal na ko yàlla lafal ca daxal ko seytaane may ko mu yeggali ndawam sut baayam fante de sa barke ba te li muy dëtmal te di ko dimbal yal na ko ko yàlla jàppale dooleel ko kàttanal ko ak mën-mënam mais li ñu mën a wax yëpp barewul li ñu koy ñaanal kañ may gudd fan gu ànd ak wér ping te dafa jaboote ñëpp jur ñëpp boole ñëpp ñëpp moom la ñu boole ñu nekk benn Mara dafa boole ñoo xam ne xam gis nañu gisee ci Adama ak Awa mu ñëw boole leen tay ñu melni comme ñoo bokk ndey ak bàyyi kenn gënu ko bajjanam bi tok tamit gërem nañ ko sant nañ ko ndax dégg nañu kàddoom dañu ne bajjan su waaxoo jóge fu mu jóge na mu soree ñëw ba fi amna na lu tax doom ju baax bu loxom sété day mëna and ak ñepp donc yal nako yalla yàlla yalla may ko gudd fa nak wër barkel ko barkel ñu ñi ñepp yow tamit yalla la yalla saxal gi sa place yalla guddal sa fan yagal sa tagaway nga yegali sa ndaw ku yaroku ku baax nga yow tamit dëdë jërëjëf nga maa ngi gër émission Wadduha yi. jàmm ak salaam musiba mii wër yàlla nañu tegg te génn senegal gépp te kenn bañ koy amin ya rabbal alamin ci barke rasulillah ci barke yi kilifa gi ñu fi fekk. ndax kilifa yàllaa koy def. du may doomu diw rekk moo tax nga nekk kilifa sama borom tànn kilifa ci màggam ak mbaaxam tey tànnal nañu kii yal na nekk suñu wërsëg yal na gudd fan. te ànd ak barke te yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala barkeel xam-xamam ndax nii muy jëriñee jaam nii la ko sunu borom bëggee ci borom xam-xam waaw borom xam-xam day am yërmande tey dimbali ñi nga xam ne ñoo ko gën a soxla te moom loolu mooy liggéeyam yal na yàlla barkeel léppam ci barke rasulillah yal na yàlla taxawul léppam ci barke rasulillah ci barke Cheikh Tijaani jërëjëf soxna si jërëjëf yow itam yal na nga fekke lépp. tur bi naka la soxna si. man soxna maam jaara Mbodj laa tudd. maa bàyyee ko maa ngi dëkkee Kër Massar. Mhm. Mara daaw laa xamanteeg moom ci mois de mars bi damaa tëdd guddi boobu damaa tawat man sama borom kër yàlla na ko yàlla yërëm sa jiitu na moom novembre bi passé ma dégg muy wax. te li muy wax yëpp njëriñ la te waxul ni damay faj waxul lii waxul laa di joxe ay ñaan rek am soxna su woote ne ko képp ku xamul sax képp kuy nattable sax xam-xam yow maaraase daf laa te laa fa jógee jël numéro jokkoog moom ma ñëw ci màkkaan mi mu di ma mu di ma ñaanal ma ñëw mu di ma ñaanal ma gis ci njëriñ mu nekk ku baax ku yiw macha allah dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam yàggal taxawaay bi yokk xam-xam bi daraje sayidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama Mara Cissé nekk ku baax macha allah te itam ku yàlla may la ku yàlla baax ndax man damaa jot a jaar fu baree baree bari waaw waaye li ma gis fii fii rek laa ko fekk man nag man personnellement man maa ngi koy ñaanal man soxna maam Diarra Mbodj yàlla yàggal taxawaayam guddal fanam yokk xam-xam bi te képp kuy ñëw fii si Mara Cissé maa ngi koy ñaan yal na la fi yàlla jiitu darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam amul amul dara lu ma ciy rëccu daal moom ba ma xamanteeg moom ba tey amul lan lenn lenn lu ma ciy rëccu wallahi lazim maa ngi ni ak sama kurus rëccuwuma ci dara soxna alors. maman tur bi naka la. maman Ami Guèye laat man moom maa ngi jóge fële buun man moom maa ngi fi doog a ñëw wax dëgg yàlla dama dégg rek muy wax émission yi neex ci rajo bi wax dëgg yàlla moo ma fi indi maa ngi fi doog a ñëw waaye wax dëgg yàlla xam naa ne moom nit ku yàlla baaxal la ndax bi ñu fi ñëwee daal ni mu ñu accueillir moom xam naa ne ku baax rek moo koy def waaw ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla guddal fanam ba ñëwaat di ko fekk ay yoon yu baree bare moom lañ koy ñaanal yàlla man Daado Bey laa tudd wakaam laa jógee ko waaw Mara dama déglu si rajo Siwal FM sama mag léegi ma ñëw ma wax ko ma ne ko man kii laa bëgg a seeti Mara Cissé mu ne ma ah mu ne ah ma nag da ngay góorlu parce que man sama rab bi heure bu ma waree seeti nit yàlla rek daf may feebarloo. léegi nag jour boobu ma ñëw ma ne ko man dimanche bii laa war a dem mu ne ma du tey nga waxoon ngay dem ma ne ko waa mu ne ma léegi lu la teree dem ma ne ko man damaa tayal mu ne ma góor góorgóorlu rek nga dem. léegi ma def la tuuma daal di ñëw kii du ma recevoir parce que nit yàlla yi mu ne lu ah, ñu soxla genre nit yi daal mais bi ma ñëwee vraiment man daal ni ma accueillir dama ko xooree dama jooy dama jooy ikket laa la wax dëgg yàlla ma kontaan si moom ba bëgg dee ma koy ñaanal rek yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi rek suñu kanam kontaan naa si moom. tur bi naka la soxna si man Fatou Ndoye. Mm-hmm. soxna si foo bàyyi ko Ngor. loy wax ci bés bi soxna ci bésu seigne ma hassise content ci lol andi fi sama ñaari mak dede ki fi dama fekka dama tit sax la bax rek li ñam montal ya bax yëpp bokk heure man bima fi doon ñew ay beekee la ma yor te gu ma mom dara waye gis bi rek tax na yàlla am la mu def ci mo yaram kontaan mom yalla na yalla yok fanam yalla la fal ko e ciat képp ka fi ñew lim feewul yalla na la ko yalla sa borom ba defal ci barka bi yonante ba tedda bi jere jërëjëf waaw ni siwal FM de kontaan nañ ci ñoom torop eh, soxna si taw bi naka la Bamba. Mari Samba maa ngi bàyyi ko ba di déglu waxam dimanche ba jot dama koy déglu bu yàlla dogale ma ànd ak sama doom ju góor bi ñëw fii boobu ba léegi mu ñëw ma gis yiwam ah diinam al ma di ko déglu ñaan muy joxe lépp ma di si xéewalu ma dégg annonce bi nag ma daal di ñëw ma ñëwee fii fekk fi kii tamit li mu wax ne montar yu bàyyi ñoo bokk heure dama tiis sax waaw ma ñëw bàyyi ko di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maman bi naka la foo bàyyi ko. maa ngi bàyyi ko maa ngi tudd Codé Samb ah maa Cissé nag li ñu boole mooy damay déglu émission am sa rajo bi guddi Siwal FM ah, sama rakk ji tamit. toujours mu ñëw di ma ay waxam ne ma nañ dem sama doom dafa feebar maama nañ dem nga yóbbu ko si marché waaye yàlla dogal na giseeguñu tey laa fi soog a ñëw ma dégg nag kii bi muy def tey ma bàyyi lépp lu ma doon def ñu ñëw fi pour gisee ak moom di sàkku ñaan di ko ñaanal yàlla moom tamit xam-xamam bi yàlla na yokk yàlla na yàlla yokk leeram yàlla defal ko jàmm defal ko mboolem jël si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaahi doon barke bu beneen yoon. soxna si taw bi naka la ko fa bàyyi ko. man soxna Awa Thiam laa tudd dëkk Pikine. Euh, Mara Cissé nag li ñu boole mooy bokk dëkk baayam di sama kóllëre nijaay waaye depuis ma ñëw fii sœur la ma jàppee su ma gisul sax damay woo téléphone te ba ma ñëwee fii ba léegi rëccuwuma lu ma ko doon xame ndax lépp lu war ci nit rek mi ngi koy def ci man di ko def ci sama njaboot dama koy ñaanal comme ni ma ko ko waxee sànq rekk gudd fan ak wér gu yaram yàlla yokk xam-xamam def ko mag mag mu amu ñam ci barke yonent bi te képp ku yaakaar yàlla yaakaar ko ñëw fii yal yàlla faj say aaju faj suñu aaju ñu ñëpp ñu di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan mu sut baayam ba ay fan parce que ku xamul woon baayam moom moom moo lay jaaxal waaye man dama xam papaam muy sama nijaay di àll siise kon xam-xamam bi macha allah daf ko doon mbaax gi daf ko doon kon yal na ko yàlla jàppale jàppale mbooloo mi jullit ci barke yonent bi yéen yéen dañ leen di ñaanal ci darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam seen rajo bi yàlla na yokk ba yëg ko mu doon ay rajo yi rajo yi rajo dem ba doon télévision ak lépp loolu laa leen di ñaanal man. yéen ñëpp ku ci nekk yàlla na nga yëkkati yokk ba yëg ko darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te ñaan gi nag ñu yàgg di ko teewee fii darajey Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ndax man wax ci Mara daf may yomb trop ndax xamante bi yàggul lool xam nga at rek la un an la mars daaw laa ko xam at rek la mais macha allah macha allah man daal dama koy yokk ñaanal man soxna maam jaar buñ maa ngi koy yokk ñaanal wallahi alazim fu ma toll dama koy ñaanal ndax man li ma indi woon fii maag yàlla rek ñoo ko xam waaw mais nag maa ngi ciy sant bu wér a wér a wér a wér di ko sant sant di ko gërëm daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bi naka la soxna si. Aram Ndiaye. soxna Aram Ndiaye dëkk Tëngéej. soxna si loo mën a sànni si bésu bi nga xam te ne moom mooy bésu sëñ Maha Cissé. xanaa dolli di sant yàlla rek. di wax a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim. bismillaahi rahmaani allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima di doolee sant yàlla rek di julliwaat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla mi nga xamante ne moom ma boole ak Mara Cissé di Mamadou Cissé bi may xamante moom yàgg na depuis 2008 laa xamante ak moom yàlla boole ñu ba léegi nag te dara waralu ko lu dul kóllëre ndax moom dafa am kóllëre te bu xësee xam nit toujours day yok à chaque fois que mu xam la rek chaque jour que fais rek xamel gi day gëna day gëna rafet day gëna dugg moy kay sant nak di kay gërëm ak bép mbokam dalé ko ci ay ñaari wajurum di len ñaanal fañu nekk tay yalla na len gënal fi joggé ma abdou aziz mum yéene walé ci bës bitam ñukay ñaanal momit yalla na suñu borom bu tedd subhanahu ta'ala yok ay leeram di ñaanal señ bi nak gudd fan gu and ak wër di ka ñaanal wër bu sax dak dak dak ak képp ku ko xam nak ak képp kuy bëggee sëñ du Cissé rek bi bëggee émission bi di di di Wadduha rek ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fan. ni mu koy waxee rek ku ma namm la euh, faj sa aajo rek ku sa aajo narul faju rek yàlla boo ma gis waaye damay ñaani yàlla suñu borom bu tedd ba subhaana taala mi nga xamante ne mooy maye wér yàlla na ko yàlla kantanal yàlla na ko yàlla dëgëral ndax ku am kóllëre la koo xamante ne bu jàppee du bàyyi yow di nga toog sax gëj ko woo mais moom da woo téléphone. à chaque fois que a toog gëj a dégganteeg moom rek dina ma woo téléphone ba xam man si lan laa ne di may nemmeeku di nemmeeku sama njaboot gis nga jour bi may ñëw fii bi ma koy woo téléphone wallahi azim dama doon jooy téléphone di jooy xaj mu ne ma noppil boo kiwee rek nga ñëw dépp ma xamante moom ba léegi mën na la waatal ne samay rangooñ si la fere si kantanu yàlla ndax xolam xol bi muy bi mu lay ñaanalee rek moo tax yàlla di nangu parce que xolam macha allah te moom lu mu lay defal rek xol la kay defee ak yërmande du xaalis du lenn nag waaw moom jàppewul nit xaalis jàppewul na dara moom ni nga ñëwee rek ak sa yar ak sa teggin noonu la lay jàppee man ne naa fii ku fi dugg te ànd ak yar ànd teggin ànd ak doylu te wóolu yàlla mi la tax nga boole yàlla nga gisante ak moom wallahi azim boo fi génnee sa aaja dina faju te man dama si am yaxim ne loolu wallahi azim man dal na ma benn bu dul ñaar si moom mii ak képp ku ma ko booleel nag ma koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér di ñaanal ñi mu bokkal ndey baay di ñaanal ay tàntam di ñaanal képp kuy waajuram rek képp kuy xaritam rek yal na yàlla yokk ba nga yëkk barke alxuraan di ñaanal képp ku ko bëgg nag lii góor gi wax léegi ne ku ko gis yàlla texe man am naa yaqin si ne moom mi ku jàkkaarloo moom texe parce que moom alxuraan kese la deful lenn du dul li neex yàlla ak li neex bi sallallahu alayhi wa sallam si lay dox te si lay wax ku deful loolu sax seexulaax yow lenn ma koy ñaanal gudd fan encore une fois di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal kantan gu sax dakk dàkk dàkk dàkk ndax service bi muy taxawee si service jaam yi yàlla gis na ko te mission lay dox nag mission bi yàlla na ko yeggale si barke alxuraanul karim mu ngi dimbali jaam yi yàlla yi boo tawatee ñëw mu dalal la boo amee problème mu dalal la yàlla na yàlla kante nag yàlla bàyyi kax njabotam guddal fanam dëgëral taxawayam di ñaanal famiyam yeb nak nag bàyyiwuma kenn. yal na yàlla defal leen jàmm defal ko kullu kuy jullit barke alxuraanu karim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. tur bi naka la mama. Seydou Fama Aïcha Sall. foo bàyyee ko. Saint-Louis. bi nga xamante ne moom mooy bésu sëñ Mara Sy. xanaa di ci bëgg rek di sant yàlla xam ki ma xam sëñ Modou ndax dafa di nekk ku sell ku ragal yàlla te ragal yàlla rek moo am solo ci nit lu mu mënti am ci àddina da am ragal yàlla amul dara te gis naa ko ci moom loolu moo tax mu fonk yàlla taggewul dara nit lu dul yàlla سبحانه وتعالى دوان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا لنين دمان دي ما بند دوم آدم بند نسا بند غور بند أي def leen ay giir ak ay peuple li taarafu ngir ñu xamante jullit doomu aadama yëpp dañoo xamante te bu ñu xamantee war dimbalante mu amul jullit amul ku dul jullit ñëpp war dimbalante doomu aadama ak morom dañu war dimbalante rawatina na ngay jullit pour dimbale sa moroom ci bépp fànn te moom say moodu loolu lay def seetul ku am seetul ku ñàkk ñoom lay dimbale ba pare nag subhaanahu wa taala ni inna akramakum inda allah attaqaakum loolu mu ci gën am solo nee na ki gën tedd ci yéen daal mooy ki gën ragal yàlla loolu la wax waxal ku am askan bu baax waxal ku am alal dafa ni inna akramakum inda allah attaqaakum ki gën ci yéen daal mooy ki gën ragal yàlla ragal yàlla di lu am solo tàggati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ka wa innaka la ala xuliqin azim am nga mënoon ko takki taggee askan bu baax te moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci askan bu rëy la bokk ci arab yi kenn gënu ko ci giiru arab waaye teggewu ko ci loolu mi ngi ko teggee ci jukko teggewu ko ci deret teggewu ko ci alal teggewu ko ci taar jukkoom la ko teggee moo tax nit lu mu mën sàkku rek jukko bu baax la war sàkku war wattu lor moromu jullitam war wattu fen war wattu jëw loolu muy loolu mooy jikko ju rafet mooy jikko ju baax te ñun ñëpp ci loolu la ñu war sàkku te moom dama ko gis ci moom loolu moo tax tey heure bi fekk ma fi tey laa waroon ñibbi seen waaye daf ma ko wax rek ma ne lu mu gàtt gàtt dinaa ñëw teewal ko beneen conférence asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bihi wa sahbihi sallama taslima mina seytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim yéen gaa yi sopp Wadduha tey diglu émission bii di Wadduha laay teewlu yéen gaa yi sopp Wadduha tey diglu émission bii di Wadduha laay teewlu dimanche bu jot 22h la koy amal wala def siiwal fa lay amee bàyyi ko xel ma amal moo jar ne lu wax mu lay njariñ yu mat a moo doon di tur wa sant waay di siise am nañu naa ko maara naam siise nit ku woyof tey laaye biir ci limu yor ku dem fa moom wax ko sa mu jox la mbir karaay filoog samsul bilaad xam suuna xaaf sekkare yi màgg na lool ay na ci gaaf karaay filoog samsul bilaad xam suuna xaaf sekkare yi màgg na lool ay na ci gaaf fàtte kat yu raay du xaa day dàq seytaane yeeg jinne yi ak ñiy yàq bu fàtte kat cuuraayu duhaa day dàq seytaane yeeg jinne yi ak ñiy yàq pharmacie bii di Wadduha yàlla taxaw te ku fa dem fekk fa lam bëggoon ci daaray duha moo may bëggal sëñ Moodu yow yàlla taxaw te jëm ca kaw soppe yi yii ma fi wax des na yeneen yu yéene ci soppe ak ku ñëw fa moom ngir diine sa naal yu rëy yi yàlla na lépp àgg nga fekke ko njaboot gi bu kenn manqué jullit bu wér la ay waxam du dandu ndeen soob na buur bi li la wax lay dund lewet na lool te ku mu gis jox la sa kër du jànn nit du gëdd ba añi jot mu ku ñëw këram ba añi jot mu jox la añ ñu añ ba ataay ñu maara ah, xereñ nga suñuy tawat nga sun rangoñ ku jaaxle ñëw ba gis la yow jaaxle ga day te xawlu naa sa ñëw du waxtu bu may jëm ca kaw te bu ma jeel te xawlu naa waxtu bu may jëm ca kaw te ma wax la si ba bopp ba xaar muy turba lu dee am na fa wax ma yomb Malah pada la si ba wadduha mooy tur wa lu dee njariñ am na fa wax ma yoon wa defal ñetti duubu wee teg ca point teg wadduha point org nee ma say defal ñetti duubu wee teg ca point teg wadduha point org nee ma say sawla ak saaba yi ak la waaw beneen bi ñu ngi ko def ci téere bi xam ne la di wax taalif bi ci biiram ay yi nga xam ne ñu ci téere bi am tënk bismillah kitaabu Wadduha liggéey ba ba noppi na ndax téere la bopp lu luy njariñ ëmb na ko loo soxla yow ci wàllu ñaan ëmbi na na ko loo soxla yow ci wàllu ñaan ëmbi na ko ku bëgg lii di musluwaay baa ubbi ko baa nga bëgg wërsëg wu rëy yow jëndi ko ay ñaan yu rëy ci wàllu cat mi leen la jël am na ca téere Wadduha yow jëndil ndaw sunu bij ba góor gi ñëw dàq ko na seeti sëñ Moodu Siise te wax ko ko ndaw suñu dij ba góor gu ñëw mu dàq ko na seeti sëñ Moodu Siise te wax ko ko liggéey bu bon mbaate jibar ndaw su taxaw lu mu doon ci ma wax ñaana ca gaaw a doon ci ma wax ñaana ca gaaw kon téere bii li na ci biir bari na lool lii ma la wax li ma waxul raw na ko lool kon téere bii li ne ci biir bari na lool lii ma la wax li ma waxul raw na ko lool yow étudiant bi bëgg ndam sa jàng mi téere ngi nii am ñaan yu baax ci examen yow étudiant bi bëgg ndam sa jàng mi téere ngi nii am ñaan yu baax ci examen kuy wut liggéey mu jafe lool ngay xëy di jëndil kitaabu Wadduha sa joon a far kuy wut liggéey mu jafe lool ngay xëy di jëndil kitaabu Wadduha sa joon far yow soppe bii téere ngi nii bu am njariñ fexeel ba am téere bi la mu lay njariñ xamal ne kat téere ngi nii bu neex a liir ci làkku réew mii di wolof te doon lu leer kat téere a liir ci làkku réew di lu leer yàq bët di yàq xel mooy jabasin loo gën a liir di gën a bëgg du waxi ma dal di ñaan sëñ Moodu mii buur may ko wér gi yaram ak famu yaatu jox ko kum fayekoon muy man di def ba dindi ci mépp mbir mu mën doon fil baladi ma dal di ñaan sëñ Moodu mii bur may ko wér yaram ak fan wu yaate ko kum fayekoon muy man di def ba dindi ci mépp mbir mu mën doon fil baladi na yàlla def mu cëx xéewal ci saydina muhammadin ak saaba ya ak ahmaduna asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu